mbokk yi ngir teeru ak teral seeni gan ci màggalug Tuuba gi jokkoo leen ak épicerie Soxna Ñang si talibé Serigne Mor Khadi si ak Serigne Malick Bassine si ñu ngi fii ci Xayra centre commercial Cheikh Abdou Lahad Mbacké gérante bi di Soxna Oumy Sall lépp lu ngeen yittewoo ci wàllu boisson wala canette ak lépp loo xam ne ni dafa jëm ci wàllu épicerie mbokk yi jàppandi na ca barab ba épicerie Soxna Ñang si mbokk yi am nañ transfert d'argent café Touba en poudre. lu ngeen ci yittewoo it jàppandi na ci barab bi am nañ machine boo xam ne ni dafay defar ay sachet ndox dañuy jaay ndox bidon 10 litres 1 litre 5 ak machine buy defar ay sachet ndox mbokk yi. am nañ ay machine yu mucc ayib yuy filtre ndox waaw ay machine yuy filtre ndox mu neex set. sell lool épicerie soxna ñang si taalibe Serigne Mor Hadi si ak Serigne Malick Bassine si ñu ngi fii ci xayra mbokk yi gérante bi di soxna Oumy Sall jokkale nag ñoom ci 77 443 58 31 wala ci 76 389 33 28 wala 78 515 63 81 épicerie soxna ñang si ñoo leen di ñaanal màggalu jàmm